moomee nag ca la njiital MEDES di Mbagnick Diop def ab prox ndollu ngir leeral taxawaay bu am solo bi nga xam ne rek MEDES mi ngi koy amal nag ak a dugal loxoom ci organisation yi soxal nag wàllu développement économique bu Sénégal yéene kaay bi ne ndaje moomee MEDES doon amal nag def nañ ci ab bilan boo xam ne rek dafa soxool yëngu-yëngu yi ñu doon amal jëmale ko ci wàllu koom fii ci réew Sénégal kuréel googee nag ca la muy dox bokk na ci wàllu rupture innovation anticipation ak proposition ak réalisation ki engagement yoo xam ne rek ca la MEDES di dox saay su nekk ngir lu jëm ci suqaliku koomuk Sénégal rawatina ndaw ñi nga xam ne rek dañu yëngu ci wàllu patronat bi waaye jàppale jeune entrepreneur yi ak femme opératrice économique yi nag bu ko defee ñuy mën di amal seen yëngu-yëngu Innocence Tab Ndiaye mi nga xam ne rek mooy présidente bu Haut Conseil du dialogue social ginnaaw bi mu teewee ci ndajem ñaar fukk ak ñeenteelub assemblée générale nag ma ngay dëggal ne MEDES moom xeex bi muy amal saay su nekk rek dafa jëm ci ni ñu mën a taxawalee am xëy fii ci réew Sénégal ngir ndaw ñi di mën a am ci lu ñu jàpp yër leen boobee yëglekaay addu jëmale ci beneenub yëglekaay mu soxal Sud Quotidien mi nga xam ne rek xëy na tey jii ci ab dossier bu yaatoo yaatu jëmale ko ci wàllu monnaie commune ak alliance yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci état du Sahel yéenekaay bi dellu soit ci juróom-ñeenteelu revue annuelle bi nga xam ne rek doon nañ ko amal ci wàllu réforme politique ak programme yi nga xam ne rek moom moo soxal projet communautaire yi yéenekaay bi ne nag foofee ca ñàmmee ca lañ doon amalee ab sommet boo xam ne rek dañ fa doon amal ay waxtaan ngir xool yeesal yi nga xam ne rek moom la ñu war a amal jëmale ko ci seen ay doxalin rawatina lu jëm ci koppar yi nga xam ne rek ñetti dëkk yooyee bëgg nañu koo taxawal Walf Quotidien fellu lu jëm ci parlement bu CEDEAO Ndakaaru ak Abidjan moom jamono ji ci diggante crise diplomatique bu metti la ñu nekk Guy Marius Sagna nag ma nga doon soppi règle du jeu yi nga xam ne rek moom la ñuy doxalee yër leen boobee yëglekaay enquête yëglekaay daal di àddu jëmale tey jii nag ci ambassade ak consulat yi nga xam ne rek moo soxal réew Sénégal yéenekaay bi ne ab chamboulement bu mag a ñu ngi ko ciy xaar ay coppite boo moytuwulee nag daañu ko ambal ci ambassade yi ak consulat yi consul bu Paris di rakk ci Abdoulaye Daouda Diallo nag jamono kaay ne ko ñu toog ci neen kay jamono ji nag mooy collectif des temporaires yi nekk ca port autonome bu ndakaaru ginnaaw bi nga xam ne rek directeur général bu port autonome bu ndakaaru di wàllu Diouf Bodiang dafa xëy rek daal di indi ay jooyanti ci kër googaak na muy doxee jamono ji nag moom njiital port dakkal na lu toll ci juróom-ñaar téeméeri emploi daal di yóbbu ci chômage ñeenti téeméer ci ay liggéeykat le quotidien yëglekaay ne ko mbale mi nga xam ne rek moo jëm ci limogeage yi fi mu toll nii ñu ngi koy wéyal bi ma ngay dellu suwaat ci faa yi nga xam ne rek moo am ci mesure yooyee état bu Sénégal mi ngi koy jël Mamadou Lamine Diallo dañu koo jëlee ca ENA ginnaaw ay coow yoo xam ne rek am na ci wàllu hiérarchie ki nga xam ne rek moo fi nekkoon ancien coordonnateur des agropoles di jiililoo moom ma ngay ñaawlu nañu dakkalee contrat ma mu jàpp na jaarul yoon ndax jaay doole moo làqu ca gannaaw les éco yëglekaay moom itam xëyee ci règle ak règlement yi nga xam ne rek moo tukkee ci président Bassirou Diomaye fay ak kii di Ousmane Sonko yéenekaay bi ne am na les waxul lu ne ca gannaaw limogeage yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal jamono ji nag yéenekaay bi ne coordonnateur directeur des agropoles di ji li mbay loo nag moom ma ngay leeral ne contrat bu ko lëkkaleeg état bu Sénégal mu war a dem ba fii ak 2028 moom la amee waaye jëwriñ ji nag moo ko proposé ab poste conseil technique mu daal di bañ ci la ñu weñ loxoom daal koy dàq ci barabu liggéeyukaayam tribune yëglekaay xëyee nomination yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ak coow li nga xam ne rek moo ca daal am yéenekaay bi ne rupture bi nga xam ne rek moom la état bu yees bi di woote boobaak léegi nag kenn mi nga xam ne sécurité doomu ministre bi ñu dénk wàllu affaire étrangère di Yacine Fall moom itam nommé nañ ko l'observateur faylu ko addu moom itam jëmalee ci nomination yi nga xam ne rek ñu ngi koy amal ak dérive ci nekk yéenekaay bi ne coow li jëm ci gestion publique bu réew Sénégal kaa bu Bokar nag médecin après la mort la ko yëglekaay bi dippee les ko yëglekaay xëy di leeral licenciement yi nga xam ne rek amalee woon nañ ko ca CBAO nag yéenekaay bi ne syndicaux yi seeni droit ma ngay fësal ñàkk àndam ci dogal yi nga xam ne rek moo tukkee woon ci inspection du travail ba noppi di sàkku nag ñu daal di delloowaat liggéeykat yi ci seen barabu liggéeyukaay laas yëglekaay xëyee tey jii lu jëm ci yeesal yi nga xam ne rek bëgg nañ koo amal ci biir conseil supérieur de la magistrature yéene bi ne fi mu toll nii magistrat yëpp taxaw nañu temm nag ci haut conseil de la jeunesse bi ñu bëgg a taxawal ngir jële fi conseil supérieur de la magistrature addu jëmale ak le soleil yëglekaay tey jii ci la amal BFM bu atum soleil na lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukki junni ci ay candidat ñoo fas yéene amal yooyee épreuve fépp ci réew Sénégal ni ki tey jii addu jëmale ci wàllu tàggat yaram yéene yu bëree bëri nag xëyee tey jii làmb ji nga xam ne rek doxoon na démb ci diggante Balla gay 2 ak Tapha Tine yéene bi di Rewmi Sport ne Balla gay 2 ma ngay corriger géant du Bawol di Tapha beneen beneenub yëglekaay ne ko retour en force kay moom la ñu gis démb ci gayndek géejawaay gii di Balla Gaye démb dafa dóor Tapha Tine toroxal ko ba noppi daan ko sunu làmb ne